www.sangatv.com. ci euh, d'abord yi xew euh, bitim réew ak Mamadou Ndiaye laata euh, ñuy waxtaanee tàggat yaram donc démb dañuy wax ni Tariq Ramadan moom ab islamologue la prêcheur la ñaare dañu koy invité saa yu ñëwee Sénégal fii ci télévision Futur Média day amal ay conférence ci université yi fii ci Sénégal donc ñun dañu ko respecté alors il pare que depuis démb dañu ko garde à vue ca France. effectivement moom mi nga xamante ne mooy islamologue suisse bi am 55 cinquante dañ ko def garde ci gannaaw bu mu amee ñaari plainte yu gàddu ci ndoddam maanaam bu ñu jàppee premier plainte bi ki ko def di Adia euh, Anda Ayiri moom mi nga xamante ni benn euh, activiste la et puis euh, salafiste la aussi Euh, ci fee mi ngi remonté ci atum 2012 la la ko tuumaal li nga xamante ni mu ne ci benn hôtel daf ko daal di violé loolu la jàpp loolu la jàppoon ba loolu taxoon mu déposé beneen plainte benn plainte pour euh, ki nga xamante ni mooy euh, Tariq Ramadan beneen plainte bi moom fee mi ngi remonté ci 2009 fële ca Lyon beneen ku jigéen koo xamante ni joxewuñu identité moom tamit li ñu wax ne moom tamit daf ko dafa jàpp ni Tariq Ramadan daf ko daal di violé mais li ñuy gën a jàpp rek li nga xamante ni démb lañ ko def garde à vue gannaaw ñaari plainte yooyu nga xam dañ koy tuumaal mbirum viol ki nga xamante ni islamologue la et écrivain la am na taxawaay yu am solo ay conférence ak livre yu mu bind ci nga xamante ne mooy euh, l'islam moderne xale bu jigéen bi nga xam ne ni moo ko porté plainte laataa mu koy porté plainte mu ngi euh, juddoo ci seen loolu euh, bi ju du ñu wax ñu tuddee ko balance ton port nga xam ne jigéen ñi nekk bitim réew lu ci ëpp ku ci am problème ak góor wala ñu yoole la mhm. da koy weer ci internet bi donc loolu ñoom ñoo ngi ko tuddee woon balance ton port hashtag la woon bu siiw ci internet bi xale bu jigéen bi ci la tàmbalee laataa mu ko porté plainte du ko njëkk weer ci Facebook Facebook bi effectivement ci page Facebook am la daal di eh, joxe li nga xamante ne mooy xibaar bi daal di ñu ne dafa amoon sax day contact ak ki nga xamante ni mooy Tariq Ramadan euh, seen communication yi nga xam ni ci eh, privé euh, def nañ ko ci ñoom ñaar yooyu yooyu yooyu yëpp euh, béral na ko daal di koy weer teg ko ci li nga xamante ne mooy page officielle bu Facebook. loolu la daal di expliquer ci loolu la juddoo euh, li nga xamante ni daal di nit ñi daal di def benn euh, coalition maanaam jàppale ki nga xamante ne mooy ku jigéen ki ba mu dem euh, porter ji plainte fee ñu fàttali ko mi ngi commencé mu ngi dat ci atum 2012. voilà donc. bëggoon naa si sof tuuti rek. Mhm. j'espère que ay tuuma rek la. Mhm. ndax wax dëgg yàlla comme ni ngeen ko waxee. ku am taxawaay si diine ji la mais tamit ku koy défendre la te ku xam fameem xam ne si famille eh, diine la juddoo moom Tariq Ramadan parce que way juróom bu jigéen Wafa Albanna Xasanul Banna moo ko jur Xasanul Banna mooy ki nga xamante moo njëkk moo si ñuy fondé les frères musulmans bi ngay dégg Égypte ñu gën leen xam si al ixwaan moom si la bokk donc si diine jooju si la yoroo màgge si mais dafa nekk koo xamante ni aussi saa su nekk day défendre diine ji da ngay gis ñoo xam ne dañuy toog si dañuy bëgg def lii dañuy bëgg def laa dañuy def bëgg def la la duñ indi benn proposition moom nag ku mel ni moom saa su nekk soo koy déglu rek mu ngi lay wax ni ngay fexee yow ba so ba ñoŋal sa diine waaye itam ni ngay fexee ba aar sa njaboot ba ñu mën a ñoŋal itam li nga xamante moom mooy seen diine te loolu aussi dafa nekk benn point boo xamante ni bu essentiel la maanaam nekkul rek di décrier toujours ñi nga xam ne gëmuñu mu ngi fexe ñu ñuy duggee si diine ji ma en même temps aussi mu ngi indi ay proposition li ma bëgg a wax rek mooy nit ki bu fekkente ne dafa am looy diingat saa su nekk di ko bëgg nit ñi bàyyi ko itam moom teg si table bi dara loo xamante ni dañuy saan dut baaraam ku ko làmb mën ko daj. parce que boo déggee boo dégloo commentaire tubaab yi on n'est pas là pour juger euh, tu l'impression que euh, dañu bëgg a yàq deram impression boobu nga yama ah, par rapport ak seen ay commentaires euh, démb par exemple j'ai vu benn article ci benn journal français où il disait est-ce que bu ba daan jógee ci lii dinañu ko joxaat cër ci monde musulman comme quoi il se pose déjà des questions ci ni crédibilité am day wàññeeku donc am impression ni ñi bëgg yàq deram wàññeeku na parce que au niveau des États-Unis am na benn université bu mu doon joxe ay cours bi ñu accusation de viol yi amee dañ ko arrêté donc mënatu fa joxe ay cours actuellement ndax accusation yi te li bizarre mooy ñaari histoire yi c'est tellement similaire que tu te demandes ba xam est-ce que kii déggul bosokee ñëw raconté moom tamit mhm. euh, loolu la ñuy ñaawlu tout le temps ci hashtag bi nekk MeToo ak balance ton port mm. lépp nga siy gis ku ci nekk lañ mun a accuser actuellement personne n'est à l'abri bu nekkee au niveau euh, de France politiciens yi lañ ci gën a yàpp ak euh, nit yi nga xamante ne dañ leen xam euh, ci wàllum diina comme tari Ramadan moom nag nee na complot la en fait mm-hmm. Mm-hmm. biñ ko accuser déjà si Facebook loolu la njëkk ñëw bind mm-hmm. pour défendre boppam donc on va suivre kii war a mën a def liggéey bi war mm. pour daal di teg li nga xamante ne mooy yoon bi comme ni ñu koy waxee genre situation yu mel nii ça nécessite vraiment une enquête bu nga xamante ni lu lu li nga xamante ni surtout koo xamante ni ak surtout fu monde bi euh, nekk actuellement l'islam koo xamante ni dafa taxaw jóg pour euh, gën a taxawal l'islam mu bu baax ñenn ñi nga xamante ne ay profane lañu lan mooy diine l'islam du diine bi nga xam ne diine xeex la wala diine diine jàmm la koo xamante ne mi ngi ci université yi mi ngi ci euh, mi ngi bind ay livres mi ngi ci conférence yu mag yu ne di mm-hmm. teewal l'islam donc dafa yomb trop ay nit jóge fee jugé wuñu du du ñun ñooy justice du ñun ñooy ñooy ñooy joxe si nga xamante ne mooy verdict mais li ci gën a am solo. moo di j'espère que justice française dina def liggéey bi war ci li nga xamante ne mooy cas Tariq Ramadan. mu ngoog waaw waaw en fait man li mu ci bëggoon euh, wax rek moom mooy ñu xam ne dafa am benn politique bu mag bu ñuy wax euh, problème. Euh, réaction solution. problème bi mooy dañuy jàpp benn nit daal di koy euh, tuumal dara léegi réaction bi mooy dañuy xaar réaction population bi léegi réaction population moom mooy euh, ñun lii la ñu bëgg léegi ñoom après ils proposent la solution donc loolu actuellement dafa nekk politique boo xamante ne xëy na mënu ko mënu ma ko wax ci télé mais politique la boo xamee nii leen rek moo ko tax a jug moom mooy euh, pour benn groupement d'individus ñoom ñuy diriger toujours àdduna quoi donc ku ñu bëgg a wàññi ci solution foofu la lay dugal mooy problème réaction solution. solution voilà Mame Ibra Kane boo amatee édition spéciale bul woo keneen wol ex Sidex spécialiste en tout donc c'est ça son avis euh, ci euh, les affaires de la cité wala question directe d'ailleurs ci question directe mos nañu ko ci invité moom Tariq Ramadan bind na ay livres yu bëri mm. Oustaz wax nga ko sànq ci euh, diine ji on a fait une petite collection ci images yi par rapport ak ay livres yoo xamante ni moom Tariq jot na koo bind pour jàngal nit ñi diine l'islam surtout ci monde bi ñu nekk tey voilà donc tout ça c'est quelques de ses livres yoo xamante ni def na ko l'islam mm. euh, référence et euh, réforme la réforme euh, radicale mm-hmm. voilà donc def na tuuru monde bi pour gën a ñaaxaat nit ñi ñu gën a fonk diine l'islam donc ñu ngi xaar fu wànnent di mujjee ki gëtam donc depuis démb mu ngi nekk garde à vue foofee ca France muy Tariq Ramadan leneen a ngi itam dañu koy fàttaliku tey jii ci bis bi 1 février rappelez-vous bi ñu xëyee ci diggante 31 ci diggante fin du mois wu janvier bi

ne euh, dafa daanu ci péniche bi foofu la dëkkoon yàgg na génn di ñibbisi dara mosu ko fa dal donc pourquoi un bon jour muy ñibbisi war a daanu ci biir euh, seen bi ba kenn du ko gis. Euh, Katusha buñ ko dee fàttali moom manquin la woon bu mag ci année 80 yi doon défilé pour marque yu mel ni l'an 20 et puis égérie woon pour Yves Saint Laurent foog naa ni turam sax loolu moo gën a tax ñu gën ko xam ci monde de la mode donc mu nekkoon mannequin bu ñuy surnommé la princesse magnifique et puis bi mu jógee ci loolu organiser woon euh, trois défilés euh, à Paris yoo xamante ne a été un franc succès euh, gën xamoon nañ ko ci côté cinéma aussi Pape Cheikh ak film boo xam ne ki ko réalisé mi ngi tudd Léandre Alain Baker film bi nekkoon Ramata génn en 2007 donc juste un an avant avant sa mort film bi adaptation le benn roman bu Abbas John bindoon même titre Ramata un film très très touchant donc boo xamante woon participé woon naa sax ci casting choisi pour jouer Ramata étant jeune mais finalement keneen la ñu retenir c'était un très beau film un an après elle a disparu je pense que euh, deewam ñëpp la touché parce que dafa nekkoon ba pare amoon nekkoon na di def ay projets Sénégal 1960 2008 vidéo illustration voilà mm-hmm. donc dafa nekkoon di def ay projets Sénégal pour jël ay mannequins yóbbu leen fii di def ay casting pour am yeneen xale yu jigéen yoo xamante ne destin bi mu am ci mannequinat bi mm-hmm. ñoom tam ñu mun ko am réussir euh, réussite bi mu am mm-hmm. défilé yi mu def yu parce je pense que couturier yu mag yëpp Katusha défilé na leen ndax taayam rafetaayam ak euh, très fin yeeg pël yi nu ñuy naay see noonu Euh, c'est juste dommage mm. qu'elle soit partie euh, à 47 ans mais bon. histoire am ça avait euh, plus d'un bi nga xam ne ni euh, juddoon euh, Guinée. Mhm. dañu ko xarafal mu màgg am possibilité dem France di fa liggéey surtout ci période boobu noonu. Mhm. nga xam ne c'était pas évident pour. Black nga mel ni nga mel tey bu ñu dee waxtaanee Naomi Campbell il faut ñu teg ci. kii di Katusha donc ni mu ñu marqué woon dafa dafa dafa dafa doy mu bëggoon nag Sénégal parce que pas né mm-hmm. euh, mais euh, sénégalaise la ñu koy woowe moom euh, tout le temps Katoucha Niane elle a même raconté son histoire ci livre boo xamante ni. dans ma chair dans ma chair lu ko gis nga. un livre très triste bi oui dans ma chair. soo koy soo koy soo dafa tëj gémminam quoi. waaw voilà mm. parce que moom finalement dafa demoon sax ba créer benn association boo xam ne c'est Katoucha Niane contre l'excision pour la lutte contre l'excision. Mm. pour nit yi rek di bañ a xarafal xale yu jigéen yi parce que dafa nek loo xamante déjà métti na mais après séquelles yi lay bàyyeel doo comprendre sax naka ngay def ba ba dépasser ko. Mhm. donc livre bi soo koy liir da ngay dundandoo moom li nga xamante ne moom la vivre ci biir excision boobu. Mhm. conséquences yi mu ko indil et puis day tax yow bu fekkente ne peut-être xalaatoon nga def pratique bi sa doom. Mhm. ndaxte ñoom euh, année yi ñuy juddu seen dëkk tu étais obligé. Euh, boo nekkee xale bu jigéen ñu def la ko moom loolu la doon xeex pour que yeneen xale yi bañ a souffrir moom li mu souffrir. bu weesoo livre boobu wax nga ko léegi ne gis nañu ko ci affiche film boobu lee di Ramata mën nañ ci xool extrait euh, film bi itam bi mu euh, génnee defoon carton. Mm. Sénégalais yu bëri bëgg nañu ko seetaan depuis que ñu koy waxtaanee mais laataa muy dem heureusement ba bàyyil nañu livre mais en même temps bàyyil ñu image am ci film bi di Ramata en extrait. Il va falloir songer à nos noces de perles. À quoi À nos noces de perles, chérie. Le mois prochain, ça fera 30 ans que nous sommes mariés. Tu as fait du chemin depuis ton village. Tu es devenue une femme riche, sans avoir trimé. J'avoue que tu dois avoir une très bonne étoile, Ramadan. Babou gaawal ci li nga def waay yow da nga yéex trop waay. Babou ñaata. ba nga lekk ba suur ñetti téeméer. alors Babou. sama bopp xarul pare nga. wallaahi man maa ma ko lakk suba ba nekk. dox ma ko waaye dama soxla kattan tey ci sama ñaari laaj jëm wallaahi. xaaral tuuti ma ñëw. wallaahi. jajjëf waay. <laughs> Combien pour les Almadis 10 000 francs. Quoi Tu me prends pour une touriste ou quoi Non, madame. Tarif de nuit. C'est propre derrière. garder la route, s'il te plaît. voilà c'est un extrait du film Ramata ki ci euh, joué euh, di euh, Katoucha ñaan tey ñu koy fàttaliku Alfie defe naa da lay intéressé parce que voilà référence la pour yéen ñi mës a défilé. ñi et puis on a eu à la côtoyer Pape Cheikh parce que jot na fi organiser quand même quelques défilés. Mm. Mm. nii ñu am chance bokk ci bu mujj bi maa ko animé c'était au théâtre national Daniel Sorano mm. ndeysaan boobu xamuma la défilé naa ca de pourtant waaye boobu xëy na xamante wuñu sama yaay la woon c'était adorable donc mu nekkoon quelqu'un de quelque koo xamante ne Pape ku généreuse la woon mhm. quand moom it defoon casting am parce que Bijou wax na ko sànq dafa soxla woon benn élite boo xamante ni mm. euh, limite taille man bokkoon naa ci ñoo xamante ni euh, dafa la doon gis ni da xawoon gàtt ah. wala da nga xawoon soxlawoo corpulence bi mu bëgg dafa doon bëgg nit ku jigéen bu ñuul mm. bu njool boo xamante ne da am mensuration yi mannequin euh, doon soxla ku ku ne xam na ni mm. bëggoon na nekkoon doon exceller ci domaine mannequinat boo xamante moom lañ doon xamoon ay doomam ñu baax pap di ko ñaanal fi suuf sedd ci kawam et puis sunu borom ubbil ko buntu àjjana yi parce que dafa nekkoon quelqu'un koo xamante ne ku très très généreuse la woon pap papaam itam dafa daan bindi livre moo tax bi mu bindee livre ñëpp ni gongo euh, euh, Jibril Tamsir ñaan euh, jàng nañu ay livre am l'épopée Mandeng Sundiata rappelez-vous ana livre bi c'est ça bindaat na itam ay livres yu bëri oh. parce que papaam intellectuel la woon ca Guinée fii Sénégal xamante ni bind na ko conte d'hier et d'aujourd'hui Djibril Tamsir Niane toujours am na itam yeneen livre yoo xamante ni moom ko bind euh, donc tey 1er février Sénégal euh, comme euh, mooy dëkk bi Katoucha Niane bëggoon ñun ñu koy rendre hommage repose en paix merci Bijou pour ces infos yi nga ñu jox ci Katoucha bu nu àggalee nag dañuy dem ci beneen actualité boo xam ne ni gis nañu ko tey ci xëtu yéenekaay bi di record jëm ci transfert uk Pape Alioune Ndiaye jógee raay dem ci club bi di Stoke City. Euh, enveloppe bi nag dund na euh, salaire baa ngi toll euh, xaalisu transfert baa ngi toll ci milliard de francs CFA di ngeen ni looloo ma ci intéressé mais Mamadou Ndiaye la ci intéressé mooy le fait que voilà. mu aay ba ñu koy xëccoo. effectivement le fait que mu jógee Galatasaray Turquie ñëw fi nga xamante ni mooy Premier League di Angleterre nekk fi nga xamante aussi mooy championnat bi gën a côté mën nañu ni championnat première fois en tout cas nekk ki nga xamante ni mu nekk ci ligne bu ligne bu baax euh, ñu soxla ko ci équipe nationale bi soxla ko fi nga xamante ni mooy ci mondial bi ñu jëm ki nga xamante ni mooy euh, Pape Aliou Ndiaye ñu koy wax PAN ñëw na fële di Stock City ci montant bi di 17 millions d'euros muy 11 11 virgule 1 milliard de francs CFA en tout cas li ñu ci gën jàpp rek démb euh, présenté nañ ko ñi nga xamante mooy supporter du club yi mën nañ seetaan image yi tuuti après ñu ñëwaat Pape Alioune Ndiaye deuxième joueur le plus cher de Stock City. effectivement moom moo gannaaw Imbula Imbula moo fa gën a cher. après léegi Pape Alioune Ndiaye moo ci topp démb match bi nga xamante ne moo di moo seexoon ci diggante Stoke City ak Watford moom ci lañ profité daal di koy euh, présenté ñi nga xamante ne mooy supporters yi wan leen ni kii mooy seen euh, joueur bu bees bi nga xamante ne moom lañ jëlee fële ca Galatasaray Turquie indi ko fii ci Angleterre en tout cas après bi mu passé visite médicale am euh, finalement il a reçu son permis de travail maanaam xam nga Angleterre moom da xamante ne mooy document bi nga permettre pour nga mën a maanaam bokk ci équipe yi nga xam ni mën a mën a liggéey daal mën ko jàppe en tout contrat bi eh, signé ne ko contrat ñeenti at la ñeenti at yoo xamante ni fas yéene na ko joué fële ca euh, Stock City Pape Cheikh voilà ku la jiitu ci néeg nag war laa mën a yoon yoon wi El Hadj Ban Mbaye Garmi dem na fu El Hadj Ousseynou Diouf miin lool <laughs> euh, muy euh, Angleterre mercato bi démb lay doog a jeex mais beneen transfert boo xam ne ni yéen ñëpp waxtaanee ngeen ko yen ñi yëngu ci wàllu tàggat yaram muy transfert ko Aubameyang uh-huh. moom nag jóge na mun dem Arsenal voilà kii moom bokk na ci meilleurs joueurs africains yi léegi sax li ñuy wax moo di ñetti trois meilleurs joueurs africains yi nga xamante ni moom lañ doon mu ñoo doon xëccoo ki gën a xarañ ci at mi ñoom ñett léegi ñoom ñetti ñëpp a ngi Angleterre muy euh, Sadio Mané muy ki nga xamante ni mooy Mohamed Salah léegi ak ki nga xamante ni mooy Aubameyang nga xam ne ñëw na rejoindre li nga xam ne mooy Arsenal moom it tamit bokk ci ñi nga xamante ñoo gën a xarañ ci euh, wàllu Afrique surtout attaquant boo nga xamante ni vraiment équipe bu nekk mi ngi doon rêvé euh, jël ko léegi finalement signé na contrat fa lay dey Arsenal moom tamit fas yéene jóge en Allemagne ñëw Premier League te moom tamit il est cher ah très yooyu 28 ans. waaye ah, mercato waroon naa am télé yi. <laughs> mais France day am. kon dinaa mel ni Mbappé moom dafa dafa cher de ñu ngi ko ñu ngi ko jëndee 63 millions d'euros. waaye bàyyi ma <laughs> man bu ñu ma jëndee ñaari million ma dem. <laughs> j'avertis les directeurs de télé. Bougane boo ma soxlaatee ñaari millions ma ñëw. Sidi Lamine. mercato Sidi dafa neex ah. Jupiter Diagne ñooñu laay waxal ku ma ci soxla daal jël ma ak ñaari million ma dem lu ci tegoo ma jëlit. mais ñi fay lu cher ay dugal ay dugalkat lañ. dañ leen di fay yow tamit ñun tamit dañuy dugal affaire bi. Ah. indi audience. waaye dama bàyyi. dëgg la de demal demal demal ci moom donc <laughs> il gagne beaucoup d'argent. ak euh, transfert boobu 63 63,75 millions d'euros. Mhm. tout cas en tout cas man def na 200 et quelques matchs yu dugal 141 euh, nekk na Gabonais bi nga xamante ni histoire footballu Gabon je pense bokk na ci attaquant yi gën a ràññeeku ci. ci dëkk bi. malheureusement nag du bokk ci mondial bi. Ah. mais li ci gën a am solo moo di. bokk na ci joueur trois meilleurs joueurs africains yi. voilà c'est un c'est un c'est un très bon joueur. en tout cas encore une parenthèse c'est vrai que yenn saa yi boo demee ci dëkk yu mag yi bu ñu la joxee salaire yu euh, liggéey ci télé yi animateurs yi ak ñoom seen sa xol day jeex. dëgg la ah lu bari dëgg la lu bëri. lu bëri waay ah. lu bëri parce que foofu euh, parce que que ñoom dañu xam ak animateur liñ ci mën a wax rek. àqu ah, lan la. ñëw <laughs> ci xaalis kuy àndi ay ay àq ak yelleef mel ni droit de l'homme. Eh. lan la di. <laughs> Ah, il parle de àq ah, il parle de xaalis. yow dañ laa laajagul dara yamal ci diine ji bàyyi télé bi. <laughs> non yamal ci diine ji juste juste. mais mais septembre par exemple xam nga. mercato la ñuy waxtaan. mercato tey voilà xaalis bi ñuy fay. animateurs yu mag yi nekk ci dëkk yi ay France ak ñoom seen. c'est beaucoup d'argent. ñoom au mois d'août. mais man Garmi loro dafa bëggoon signer contrat Dubaï. ah waa surtout animatrice culinaire c'est vrai nga xamante ne sponsor yu yu rëyee lay suivre Pape <laughs> tey sama waa ji yàlla mën teralaat. dëgg la kay <laughs> yàlla baax na. xam nga ñoom au moins mais juste ça c'est quatre mille par weer. gar mi dafa dafa bëggoon nekk sama agent bu ñu demee Dubaï. gar na ma ma nekk mbay yàgg nañ si dëkk bi te ñooñu voilà booba dañu woo mu ne man daal jàkk ji bu ñu la soxlaa woon imam ma signé le contrat bu ñu jógee Dubaï woon. et c'est dans beaucoup de domaines yenn saa yi nit nekk ak ci domaine yëpp a ah, jàngale fii Sénégal euh, bu dee yow da nekk ci benn domaine boo demee bitim réew boo gisee même domaine bi nga nekk ak liggéey bi nga mhm. gis ni ñoom dañ leen fay lu bëri quoi après di ngeen ma ni ñoom c'est normal la ñoo développé foofu foofu quoi imagine ngeen benn affaire bu fa am boo xam ne amul Sénégal Sénégal par exemple benn animateur su jógee benn télé dem beneen nit ci limite dañ lay mere gens comprennent pas nit yi dañ lay critiquer lan moo tax mu jóge fii dem fii alors que France par exemple août bu jotee diggante août ak septembre moom mercato football bi ñoo yem nit ñi dañuy bouger tout le monde tourne ñi lay mere dañu xamul rek tout le monde tourne ba pare li ngay li ngay tourné boo ko gisee rek sol ko dem da ngay waaj a dem day na Moussa <laughs> dama doon waxtaan ak benn promotionnaire tubaab français la euh, moom ñoo ñoo ñoo débuté ndoo euh, journalisme mm. mais moom loolu la ma wax moom tamit expliqué dafay comparer peut-être ak ak ak seen c'est pas comparable dañuy toog rek koy expliquer c'est pas comparable mais moom bu lay expliquer dalay wax ni moom fi mu fi mu jógee ak fi mu nekk fi mu fi mu nekk actuellement mm-hmm. di la wax ñoom seen euh, masse salariale fi mu tolloog ak ñoom ni ñuy ni ñuy ni fayeeku mm-hmm. ma ne c'est pas la mais yow da nga yëkkati kii tàbb si wax ji rek nga noppi euh, kii Baye euh, new xam nga trande ci sa réew bokkul ak dara mm-hmm. teraanga bi nga xam ne nii danga ko jéggaani mhm. bi nga xam ne ni danga ko ñafe ci sa biir réew mhm. bi nga nekk ci sa biir réew mhm. moo ëpp barke parce que sa réew nga ko def bokk la million yoo xam ne dafa jóge ca àll ba nanga ma ki nanga ah. et puis et puis buñ doon fay buñ doon fay solo ancienneté bi kon tey ji yaa ñu ëppale salaire de ex selon fi selon fi animateur bi jaar quoi depuis 1900 war nga dërëm. bi nga def télé boobu maa ngi toj rajo yi di toj àll bi. non <laughs> ah, Pape Pape extor na la. Hmm? bi nga def télé maa ngi toj rajo yi di toj àll bi. defant toi Pape. jamono yi donc nene en télé. nii nii. 90 waaw nene waaw <laughs> nene. <laughs> mooy sama nene ci télé yi bàyyi ko mu war. nostalgie. comme dugal lay wax. jamono yi 90 waaw temps international. et tu sais un jour ce qui m'a plu chez lui euh, je le connaissais pas trop bien. Euh, dañ ko doon defal interview sur Radio France Internationale. waaw euh, RFI ñoo doon interviewé ak Sidex li ma lay wax. Ah! war na def ay 5 ans ou bientôt 10 ans ci ginnaaw. Mhm. alors comme un hasard ma jàpp RFI dégg ni ñu ngi wax ak animateur bu nekk Sénégal. Ah, mais muy def témoignage ci man sans. pas pour autant que ñu ñu ñu xamante ah si tu viens au Sénégal il y a des animateurs koo xam ni Pape Cheikh machin révolutionné et tout ça je sais pas si tu te rappelles de ça euh, et c'était un témoignage boo xamante ni écoute euh, euh, dama ab junni ne yow laa koy jox mu jigi ma lekk non Pape yokkal ko junni dafa ndaw <laughs> <laughs> mais wax wax wax li dëgg dara new ci c'est mm. comme on dit c'est une chance d'avoir des gens qui osent ah révolutionner changer les choses mm. te defe naa ne dafa bokk tey ci paysage médiatique politique nit ñi nga xamante ne dañuy révolutionné mm-hmm. ñooñu euh, je pense que ne bu ñuy interviewé sax dafa mm-hmm. baax ñu lim ñooñu nit nga xam ne mm-hmm. c'est des gens qui ont changé les choses te tu as changé la télé nag sawaay euh, loo bañ ko la tàgg bañ ko la tàgg ma la tàgg tàgguma la mais damay wax dama wax lu dëgg <laughs> lii dëgg ku ci tàccu sa loxo du métti <laughs> doo dee oui Bakar bi ku ci daal sa loxo di bett ko ci saar xool la doo dee da ngay dee. jotaguma <laughs> def. <laughs> voilà donc ñu àggali ak euh, Mamadou Ndiaye balaa ñuy jeexal.